salaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu allah ji loolu mi gën a gën ma dee leen fàttali rek nag ci njekk man nag am na lu ma doon daaw ren nag fàttewuma ko ca tam xarit ja topp sama ndeyjoor bi rek di sif si ñeex mi rek di lekk waaye lan dëbee correcté lan dëbee li nga xam ne nii mooy tam xarit gisoon naa résultat ma dee li fàttali yéen ñi nga xam ne nii cere da ngeen koy bëgg te cere tam xarit lu ne lañ cay def bu sa biir tëmbul moom monsieur Ba moo tax ren ji cere ji moom xool benn dànk dugal pare naa ca li ma daloon daaw daal incha allah du ma ren ndax fot ci ndab fotaat ci ndab du xiif bëgg wann la comme fotoon naa daaw ren du fot cere yi de leen ko moytu cere yoo xam ne ni mboq lañ ci def cere yoo xam ne ci laalo laalo nguy laalo lépp madd lingoom ba ci jinjeer lépp ci cere ji mu daje ci biir faaw mu def effet daaw daloon na ma